ganuk bis bi euh, ñu fas yéene dalal Cheikh Ahmed euh, Tidiane Sall nekkoon euh, bokkoon ci parti bi di Pastef bu Ousmane Sonko fi ñu toll ni nag moom mooy coordonnateur bu mouvement bi ñu tuddee rassemblement des patriotes du Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Sall maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum madame Moreau maa ngi lay fay maa ngi lay fay di la nuyu bu baax di rafetlu invitation bi di nuyu mbokk auditeurs yëpp ñu ngi déglu di ñaan yàlla li ñu fi wax rek mu doon njëriñ pour askan bi gindi xelu nit yi voilà Cheikh Ahmed euh, Tidiane Sall nga bokkoon ci parti bi di Pastef euh, bu Ousmane Sonko euh, nga daal di génn euh, fan yi euh, fësal ni génn nga ci euh, Pastef lan moo waral génn bi ba nga daal di samp sa mouvement bopp di rassemblement des patriotes du Sénégal waaw génn bi li ko waral 2017 mooy man parti Pastef euh, dama ko implanté maanaam ci France dama ko ko wéyal wéyal ko ci diaspora bi boobu bi koy def nag kenn laaju ma euh, sama avis euh, fekk boobu temps Ousmane Sonko ñu ngi ko radié ci 2014 ma njëkk a créé li ñuy wax comité de défense de Ousmane Sonko. en 2014 bi ma gisee mbir mi ni mu tëddee si laa si profité ma ne li occasion aussi pour ma implanter parti bi France ak si diaspora bi euh, ñetti at yàlla 2014 ba 2017 loolu la taxawalee parti bi un peu partout mais 2017 dafa am li nga xamante ne moom la ñu doon wax ne mooy liste unique de l' nga xamante ne moo doon oppo mbëbëtu opposition bi yëpp pour ñu dajaloo nekk si benn liste. pour mën a am la majorité au parlement euh, dama si engage woon si discussion yi dama si engagé woon parti bi au niveau de la France ak sama yeneen naataango yi mais bi ma ko defee euh, Ousmane Sonko nekk jo bokk bu ko woon bokk parce que moment boobu moom kenn xamu ko 2017 euh, amagul woon dayo bi mu am amagul woon tour bi mu am donc dafa jiital intérêt personnel am moo bañ a bokk ci li nga xamante ne moo doon intérêt général donc euh, te man ku ma xam ni may defee politique te du may jiital li wax sens intérêt général li nga xamante ne mooy njëriñ askan wi donc loolu moo war a nekk sax jëfu politique mais doo war a xool sa jëfu parti wala sa jëfu sa bopp yow donc euh, loolu moo ñu waral dama génn ci parti bi donc euh, rassemblement des patriotes du Sénégal nag naam man maay coordinateur bi parce que ñoom dégg naa ñu ngi ñu wax ne naka ku génn depuis deux mille dix-sept mën a wax ne euh, parti bi dafa tas wala li mais may xam ne man kenn laa si ndaw yi nga xamante ne dañu nekk si rassemblement des patriotes du Sénégal nga xam ne ñi gën a dure du rek waa Pastef mais am na ñeneen Sénégalais yoo xam ne nekkuñu woon Pastef mais majorité bi tey di nii si ñi nga xam ne dirigeant mouvement bi ay responsable Pastef la ñoo xam ne bi ñu am na ñoo xam ne bi ñu demee ci il a deux mois am na ñuy six mois am na ñoo xam ne un na donc loolu yëpp li ñu boole ne liggéey bi ñu liggéeyoon ba lawal parti bi ci diaspora bi surtout ak si Sénégal war nañu ko bàyyi mu naxsaay parce que gis nañ aujourd'hui parti bi ni muy fonctionné parti bi fitna bi muy indi ci Sénégal te ku nekk ci ñun def si am responsabilité parce que bokk ñi nga xam ne ñoo taxawal parti bi loolu tamit moo taxoon ma loolu baax na ma wax tamit di ñu déglu. waaw ñu bëri jàpp ni fi ñu toll nii Cheikh Ahmed Tidiane Sall euh, gars yu nguur gi ñoo nekk sa ginnaaw di la di la di la manipuler euh, pour peut-être nga yàq deru Sonko yàq deru Pastef lan ngay tontu ñooñu. waaw loolu man ku ma xam personnellement ñi ma xam moom xam nañ ne man euh, du ma nit bu ñuy manipuler wala nit bu ñuy jox ay commande mu koy def. Euh, tolluwaay réew mi moo tax fi mu nekk nii ñu jug ñun am taxawaay bi ñu am au niveau des rassemblements des patriotes du Sénégal parce que un patriote dëgg un patriote sincère du taal réew du dox si li nga xam ne day taal réewam du dox si xam ne day donc ñoom loolu ñuy wax man ça ne nous engage pas ça ne nous lie pas euh, bu la neexee ñu wax hôtel mais li ñuy li ñu tax a jóg mooy defar bokk ci ñi nga xam ne dañuy defar réew mi mm. bañ ko taal aar réew mi parce que loolu lañu ñu war a amal suñu réew loolu dañu war a delloo njukkal suñu réew politique dañ ci dugg pour defar dañu si pour taal ak yàq waaw rassemblement des patriotes du Sénégal bi nga tekk euh, da nga ay ambition politique ak euh, kuréel gi waaw wala déet waaw xam nga booy dugg si politique moom dana si am am rejet politique soit si mën am rejet politique yi nga xam ne dina la permettre pour nga defar sa réew defar sa gox donc euh, naturellement ñun euh, yàgg nañ si langue politique bi euh, actuellement ça fait bien vraiment politique nekk loo xam ne élément bu central si sama dund dafay daal yàlla jaamu yàlla loolu liggéey parce que politique boobu defee ni nga ko war a defee jàpp naa xeetu jaamu yàlla parce que boo jógee pour defar sa gox defar sa réew pour mu baax pour mu mën nekk comme yeneen réew yi que sa doomu réew yi bañ a dem di jéegaane di jël ay gaal wala leneen leneen loolu je pense que xalaat bu rafet la ambition bu noble la donc ñu taxaw bokk si ñi nga xamante ne dañu bëgg a defar la ñu pas ñi nga xam ne dañu bëgg a toj réew mi Mhm. Euh, manifestation Yewwi Askan Wi ma laaj la si loo si xalaat ci mercredi bi lañ ko war a tàmbale vingt neuf euh, jëm suba trente mars di coïncider ak euh, procès diffamation ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ba ci 3 avril ci bu ñuy waajal feetum indépendance su réew mi manifestation yi nag préfet daf ko daal di tere naka nga gisee mbir mi. waaw xam nga Yewwi Askan Wi benn pàcc la rek opposition bi euh, man euh, bi ñuy wax euh, def sànq journal kii bi interview bi si tubaab wax naa ne ne sama sama nombre tànk bi nga xam ne dama ko am ci diaspora bi muy nekk coordinateur front de Macky mu nekk benn front boo xam ne dafa ŋànk ay parti politique opposition mouvement citoyen ak société civile donc euh, Yewwi Askan Wi benn pàcc la si opposition bi te euh, xam nga ne xel ne opposi opposition bi du ñoom rek ñoo nekk tey si langue opposition bi ñoom nag dañu choisir façon bi ñuy exprimer wu c'est dans la violence et ci fitna la ci ay xët-xët la mais euh, heureusement oposition Sénégal yëpp ñoo nekk ci logique boobu parce que yaa ngi wax euh, waxu procès diffamation waxu mais ñoom quand même waroon nañ am tuuti retenu parce que euh, munoo am munoo am kenn koo xam ne dafa bokk ci coalition bi am ay problème personnel am ngeen ñëw ko problème personnel yooyu ngeen indi ko si langue politique bi bugg a jël seen problème personnel indi ko si langue politique bi pour def politique bi bouclier jaxase yow askan wi doo leen dégg ñu wax waxu courant bi waxu waxu dund bi waxu mais eh, dañuy marche parce que dañu woo sa benn naataango ku bokk ci ñoom tribunal te dañ koy wooyee moom moo ko teg boppam parce que moo jiñ nit ki sàcc beneen bi mooy dañ ko jiiñ yakataan donc euh, ñoom tey boo seetlee tey eh, pour ay problème personnel dañuy jiital pour indi fitna ci réew mi mais li ñuy def loolu du politique dañu choisir vi ñoom da actuellement dañu choisir yoon bi gën a yoon bi gën a yomb ci politique yoon bi gën a yomb si politique mooy toj ak yàq moom la ñu jël te loolu du politique parce que politique bu demee ba nga xamante ne amul lu mu proposer lu dul toj ak yàq rek wàcc na yoonam parce que politique boo ci dugg danga ñëw pour am programme projet pour que nit dund nit yi askan week yooyu nga soxali leen proposer leen dund koo xam ne dund gu mucc ayib la mais bu dee dund fitna tey ñëpp xam nañ ne Sénégal ñu ngi si fitna te li ko waral mooy opposition boo xamante ne ñoom dañu gumma dañu gumma seen bët nekk ñu lu dul lu leen neex du jéem a xool lii ak ndax lii jaadu na wala jaaduwul donc euh, xam nga bu ñu demee ba 3 avril ñu ne ñoom dañuy manifester mm-hmm. mais nga xam ne ñii est-ce que bëgg nañu réew mi parce que même da ngay gis yenn dëkk yu am dëkk yenn dëkk yu mag yi dafa am ay date yoo xamante ne mm. lu ñu jàppante jàppante maanaam kujje gi ak pouvoir bi dafa am loo xamante ne bu jotee dañuy teg yëpp si suuf ànd après ñu daal di delluwaat si ñu nekkoon normalement 4 avril fête indépendance Sénégal la fête ñëpp ko war a bokk àndandoo mbégte daal di xool li baax ak def constat mais naka la ñuy préparer avril mu am ñoo xam ne dañu bëgg indi fitna manifestation mais mel ni comme bokkuñu ci réew mi donc vraiment euh, ñoom war nañ xoolaat seen bopp parce que opposition kenn du ko defee nii te c'est pas opposition du nii la ñu nguur aussi réewum Sénégal wax naa ko ci journal ki interview tubaab bi dafa nekk réew moo xamante ne président bi fi toog carte moo ko fiy teg mais du si mbedd bi ngay jaar pour si si jël bopp rek loolu dañuy nax seen bopp rek voilà Cheikh Ahmed euh, Tidiane Sall ñu laaj la tuuti ci euh, bracelet électronique ñu gis ni fan yi am na ñoo xam ni bokk nañ ci Pastef El Malick Ndiaye Waly Badian Diouf euh, ñoo xam ni dañ leen takkal bracelet électronique El Malick Ndiaye nag après sax def na benn post si Facebook am di wax ni bracelet électronique bi ñu tàmbali takkal waa Pastef c'est mieux pour contrôler parti bi di Pastef pour xeex parti bi di Pastef naka gisee le fait fait ñu commencé di leen takkal ay bracelet électronique waaw xam nga Pastef tey man temps yëpp maa ngi koy wax te l'histoire de na raison man dama ne Pastef aujourd'hui euh, nekkatuñu ci champ politique bi waaw parce que boo boo defee constat bi ni mu waree da ngay xam ne ñii nekkatuñu ci champ politique bi dañu nekk ci genre lutte armée wala genre sédition wala genre euh, mouvement boo xamante ne vraiment euh, mouvement de rébellion la État du Sénégal aujourd'hui war a commencé ak yenn détention préventive yi ak yenn détention yoo xam ne li ko waral ñii nekkoon ci manifestation yi jiite ñi nga xam ne ñoo doon toj ñoo doon yàq ñoo doon kër ñoo doon taal këru jàmbur yi ñooñu commencé nañ état commencé na di leen traqué di leen jàpp ak ñi nga xam ne tamit ñi ngi doon waaj pour def ay ñaawteef état mi ngi leen di jàpp parce que réewum Sénégal du réew bu tuuti dafa nekk réew moo xamante ne am na ay jumtukaay yoo xam ne mën na aar réewam mën na aar askan wi donc loolu ñu ngi siy félicité état du Sénégal di si félicité des forces de défense et de sécurité parce que euh, man dama dem gëstu euh, li ñuy wax doctrine de maintien de l'ordre parce que damay gis Sénégal des fois dama gis sama yenn xarit des fois ñu may wax état bi dafa faible état Sénégal métti et même man sax doon dañ nañ ma xaw a yóbbaale mais benn moment dama dem gëstu li ñuy wax doctrine de maintien de l'ordre pour xam lii sax euh, lan mooy lan mooy lan mooy euh, vraiment changement euh, doctrine maintien de l'ordre bi nga xam ne force de défense et de sécurité ñu ngi ko def bi ma demee gëstu ko ci la comprendre que ne ñun forces de défense et de sécurité yi ñu am dañu leen war a delloo njukkal parce que c'est des grands patriotes et c'est des républicains parce que yii di xew Sénégal bi mu amee si yenn dëkk yu mel ni Tchad dañuy fa compter ay centaines de morts bi mu amee Burkina soo pareil bi mu amee Mali pareil bi mu amee Côte d'Ivoire pareil donc ñun suñu force de défense et de sécurité dañu professionnel te dañu gëm seen liggéey te c'est des grands patriotes dañ leen war pour revenir Hmm. Euh, lu baax la lu baax la si askan wi parce que euh, du délit yëpp moo moo mérité rek ñu dugal nit prison euh, à un moment donné c'est ça fait partie des des outils yi nga xam ne yoon am na ko tey pour mën ko di ko teg si nit yi pour mën leen surveiller pour man xam seen jëf parce que aujourd'hui les militants de PASTEF avant ñuy nekk danger pour Sénégal danger pour seen bopp ñoom seen bopp ñoom dañu mel ni benn genre kuréel boo xamante ne xamul leen lan moo leen matt mais dañu mel ni ñu tàggale ko seen sago donc euh, ñu mel noonu déjà danger lañu pour ñoom mais danger ak ñu ngi ak danger ci biir réew mi donc euh, état Sénégal maa ngi leen di féliciter ci taxawaay boobu euh, ni leen di surveiller Euh, ni ñu leen di surveiller pour ñu bañ a yàq réew bi daan ko taal loolu am na solo trop voilà une minute rek euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sall c'est par rapport ak sortie euh, bu bu procureur de la République euh, di baaxum baaxum sax wax na ci ponk yu bare bari mais dem na ci ponk bi nga xamante ni fi ñu toll ni moom la ñuy gën a wax di commando yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Pastef ñoo xamante ni dañu taxaw pour jaxase réew mi installer la kaw dans la pays en tout cas muy kàdduk procureur baaxum mu daal di kay wax ni gi démb ci conférence conférence de presse bi euh, déjà une minute wala deux rek sa xalaat ci mbir mi. waa moom laa nga xam day rejoindre li ñuy wax ci bracelet électronique yi boo gisee procureur bi li mu wax démb opération yi nga xam ne ñu ngi ko doon préparé pour mën a taal ay béréb euh, euh, dal ci kaw ay responsable régime bi aussi loolu day wane ne Sénégal mi ngi si guddi gu bët setagul Euh, te avant ñooñu am na force spéciale amoon na force spéciale day wane aussi que dafa choisir délibérément la voie de de de mettre le feu de mettre le chaos dans ce pays donc procureur bi yooyu mu wax ah def naa ku mu tiitalul dootu tiit et donc euh, il faut vraiment état bi dolli doxaat gën a dox ay ñu traqué leen ñu bañ a am benn faiblesse coupable que seen loxo bañ a tremblé parce que moom nekk ci réew nga nekk benn petite minorité nga bëgg a tenir tout un pays en otage bëgg a taal réew donc li procureur du c'est grave ces accusations là et il faut que l'État en tire toutes les responsabilités quitte même à dissoudre ce parti bi nga xamante ne tey nekkatuñu ci champ politique mais dañu nekk ci genre rébellion ci genre terrorisme euh, avant c'était terrorisme entre guillemets mais maintenant c'est un terrorisme debout narratif dafa nekk benn benn terrorisme boo xam ne ils sont en train de passer aux heureusement ñu am ay forces de défense et de sécurité yoo xam ne ils sont pro réactifs à chaque fois de jouer où yi nga xam ne ñoom nar nañ ko def si askan wi et j'ai bien peur qu'un jour qu'ils puissent passer à l'action ils sont déjà passés à l'action parce que le fait de brûler des édifices publics des ay kër c'est forme de terrorisme voilà ah, donc il faut que état bi jël ay matukaayam euh, neutraliser leen mu jeex tàkk. voilà Cheikh Ahmed Tidiane Sall maa ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. tout le plaisir est ñoo ko bokk nii la war a demee Sénégal dañ ko war a waxtaan. noo ko joxe xalaatam ñun nangul ku nekk xalaatam respecté maa ngi lay gërëm bu baax tax madame Moreau. voilà merci beaucoup Cheikh Ahmed Tidiane Sall mu nekk euh, coordonnateur bu mouvement le rassemblement des patriotes du Sénégal ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité bu baax a baax ci disponibilité bu baax a baax ci